ko union européenne defee Afrique dafa dal di sos ay kuréel ngir gën a mën a taxaw ay jafe-jafeem lu ci mel ni CEDEAO union africaine UEMOA naka noonu CES tey jii nag solos yooyu la kuréel ci jafe-jafe continent bi moom la ñëpp di laaj. boo wérul mënoo tabax tabax lu wér ni da nga am jafe-jafe sa biir kër ni da ngay gën defar quartier bi. ak ak ak euh, village bi. structure yooyu muy CEDEAO di Union africaine et cetera boo génnoon tey rek laajte ci askan wi loo leen xam ci CEDEAO ak loo leen yëg ban njeexital la CEDEAO am ci li ngeen di dundee doo ko yëg. yile kuréel nag ginnaaw ba ñu leen sampee dañu daal di laaj ci doxalin wa. plan d'action yi ñu tegoon pour mën koo dawal dañuy wër di wuti xaalis bu leen di permettre ñu dawal ko amuñu xaalis sax bu ñu ko mën a dawalee donc yooyu ay difficulté la yoo xam ne day indi lu tax tey finalement euh, structure yooyu nga xam ne am na njariñ toujours. du ñu mën a dawal le départ de du Niger du Burkina Faso du Mali seen départ boobu nga indi ko. day day woyofal CEDEAO tey da koy nasaxal parce que nag du loo ci mënti dégg ñi ngi doon góor góorlu di dem mais lépp matul. ana lan moo mën a ruusee ci beddeeku boobee. alliance des états du Sahel Mali Burkina Faso et Niger ku wérul mënoo tëgg lu wér. Euh, en réalité mënoo dawal yenn politique yi. te yoroo xaalis bu lay permettre nga dawal ko. faw nag ñu dal di taxaw dal di càmbaraat solos yooyu la kuréel yu ñu samp ci continent bi suñu ci noppee ñu fexe ba africain bu nekk gis boppam ci lépp li nga xam ne ñu ngi koy dogal ñeel continent bi loolee le spécialiste des relations internationales bi proposé ngir suqali continent bi.